Look at this bi la gamme VIP marron savon et crème Boko koy sangoo lépp luy Ur, ak bépp tache boo doon jàmbat dootoo ko gis ci sa yaram rax Gour dolli góor ak koy hmm. j'adore tes rondeurs Khali jigen, jigéen ñépp bëgg ñu naan leen forme à rafet Eh oui ma la solution est enfin arrivée li la gamme VIP jongama ça y est c'est à votre disposition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 waa tonton sim ko. ah kontaan naa de tey moom dangaa ñëw. wallaay wallaay wallaay. Hmm? xam nga. xam nga fan yi damay waajal voyage. ah da ngay voyager. waaw. Hmm. moo tax ma ne naa fi jaar. dëgg la. Hmm. ndax nga teraanga nga koy faj. dëgg la te nit lu baax. dam koy defal lu baax. to nag wax dëgg yàlla damaa bëgg nga am si man confiance nga wóolu ma. d'accord bàyyee ma ak sa bopp. bu ma ñàkk la. aar la ndax nag sama lam ak Ana Mbaye moom jeexagul <laughs> Ana Mbaye dinaa ko woon lu mel ni xame bëccëgu ndar kam jaru ko jaru ko àdduna mu solo bi si mooy mhm. damaa fee jaar ma ne naa am lu ma la indil mhm. bu ko defee mhm. lii sunguf la danga koy xooj nga sangoo ko juróom ñaari yoon waaw d'accord ngay def premier xooj nga sango si jurom ñaari fan bu jexé nga xojaat bép liggéey bo xamante nek na sa yaram def-def la da koy rocci ba mu set wécc léppay toj mo xam liggéey bi mala def la mo xam buñ bu la kenen def d'accord d'accord dama bëgg nga woluma ma rek bàyyee maag sa bop diggante jerbaat ak nijaayam inshallah allah allah dara dootu la metti ci aduna ah li de mom wax deug yalla

àdduna amul solo tonton Sarr xam nga nit dina def lu ñaaw uh-huh. te du nangu uh-huh. dina def lu ñaaw te du nangu jéggalu wallaay dégg la waaw yow lii nga def mm-hmm. acte bu noble la geste boo xam ne la c'est à saluer dégg la donc euh, na sa xel dal man ameloo ma benn ak sa dégg la man maa kontaan ci man maa la wallaay yal yàlla kontaan waaw yàlla kontaan beneen bi si topp nag mm-hmm. comme damay waaj a dem dëkk ba waaw ndax xam nga ni nawet bi jub si na mm-hmm. looloo taxoon nag ma ma ma ma jaar fi ma ne ma mun a amaale sa numéro téléphone Hmm, ndax bo waaw sa numéro téléphone bu ma demee dëkk ba nga xamante ne dinaa la moon di oow di la ñaan crédit euh, téeméer ak juróom fukk war a juróom fukk crédit ma si di woote ndax xam nga dëkk ba moom problème mu lekk amuñu ko hmm. maanaam problème bi ñu am mooy pour nga woote d'accord waaw loolu daan moo nekkoon jafe-jafe bi d'accord loolu loolu loolu loolu du problème hmm. euh, ay téeméer crédit ak mille francs crédit moom déedéet incha allah weer bu jot bu ne. Mhm. dinaa la yónnee ñaari junni crédit. Eh. waaw loolu ëpp na de. moom. Ah, la yónnee su ko defee. Mhm. ngay woote. Mhm. képp koo bëgg a woo nga woo ko. say problème. Euh, man. bu boo ma soxlaa man mën nga bippee soo ma bippee man ab xit naa la woo loolu du Bippé moom kaanate la si sax moom. moom moom nu mu si tudd. déedéet Bippé. Ah. mooy maanaam nga boo composé sama numéro. Ah. nga laal appel bi nga déglu bu sone ah. après yow nga coupé. boo coupé. man après man dinaa la rappeler. comme ah. ça man nag bu ma xasee teg ci nopp bi hmm. tàng dégguma koo koo ba mu kuppal boppam du du bàyyi damay de xale yu wax lii ñag yooyu noonu yëpp ma yooyu comprendre ma ko ci man damay wax rek ba mu ne kii kamat ba eh. doog a xam ne kopp na eh, taal taal moo ana da dégg ba tey ma ma ñëw laajte la wala ma tudd sa tur. Cisco da xam ki waaw tonton Sarr dafa waroon a dem voyage après mu day jaar fii dëkk beeg ni mu naqareeg ni mu tërëdee ak fi jamono ji toll ni ñu toll ci jamonoy nawet bët di waaj a sébbi Cisco koo xamul nooy toogee moom di wax ak moom. gis nga yow ni nga def ba xam ma noonu la def ba xam ma yaa ngi dégg. to nag géwél bu peesib xare lu mu jiin da koy xeeb man ngay wax dem to yaay dem bu mag bi nga ne mbuq sa beti dinu roog looy xam to dem bi gën a soxor mooy dem bu xees tonton tonton naa ko ci yàlla Cisco koo xamut tonton Sarr oui ma xoolal àdduna amul solo <laughs> xam nga jamono ji dugub bi suuna daa manqué amul solo lu wax dañ koy suturaal yow lan la may suturaale lan laa def ba may suturaal ah lan laa def. noppi rek noppi rek waaw noppi rek noppi rek kii xamoo ko xamoo kii Cisco. waaw nañ dem. wuy leen ma dem nag bi si gën a soxor mooy dem bu xees. bàyyi leen wax ji euh, nañ dem ma gunge la. waaw waaw jërëjëf Simko jërëjëf. ok jërëjëf. xaw ma da ngaa mariñeeru xaw ma da ngaa ndokketu. ok nañ dem. donc femme bu divorcé noonu xulli. kii mooy duul katum daanaan xaju xaram bi mu doon ay mën sëñ Saar mi ba ma ko xamee léegi fukki at juróom ci ren caayaay xajam ju cëkk ji laa ko xamee ju xasaw ji nga xam ne doxat na ko ba mu xasaw faari mbaami xajam yi mu yor. ki mo bon sëñ sar fo djublu yalla bu fa yiw yalla djublu yalla na nga accidenté dé yalla na nga maxé yalla na la ay max topp mbelentaan top la ay kañaak lepp ki moy xat dul katum danan bi mu doot yalla na nga dé ta bo dé nga siiñ def ni ñi yaakaar da nga contane fekk dé nga bu yag nga xam sa yaxe jooy ci nekkee jàmm daal loo ko jëndee jar na ko. yow dangaa baax yow ku nekkul dëmm da lay bëgg. xadi sama mboq la. waaye duma sàqal fu ma yem ak ku may àndal. jàmbur bu baax dafa gën mboq bu bon mais mboq tamit bu baaxoon da cay gënati. xadi de kenn xamul ban genre la nañ ko seetaan noonu rek tey ñaanal ko yàlla sotti ko. waaw loolu dafa leer ay mag ak rakk lañ ndax ñoo bokk aadama eh, ak awa eh, eh. ay nag kër gi nag moo ngi doog a neex yaa ngi yow dangaa yeex a ñëw de jàmm ci la lépp xaj ay bu leen fi kumba si fekkee anam bu leen di fekkee non di ngeen xam ne lépp dëgg la man daal bëggoon naa nag wax dëgg yàlla xadi di di ci kaw suwaadu mii way dal ko xamni jam, jam ah xam nga tay la la bëggam ñu genn dem reer kons doxantu xal suñuy xol da ngay kaf wala xam nga tay mo ay da mhm. yow moom bu tu ni yow lay bëna gis xalaatuma do reer dafa leer ndax yow lay bëna gis da nak du togg lu baax tay da ñu leen ñu dem relax lekk lu ñu neex may pay caaxaano li la duma ko laal fenn xoolal jarul sax ngeen échangé li ngeen sol nii dafa jong ma wuy ma reer bi mën nañ koo saraxe dañ leen dem pour lañu dem reer yi dem George mi ko xamne do fay bor ci adina man di wax deug yalla waruna jaxle na de ku dul fay bor yaay man sonn naa de yaay ah yaay doo ma dimbali ngir yàlla tekki ma fi dara kii kan lay waxal yaay yow laay waxal lay wax ak man ay yaay yaay dimbali ma xool Maria mi nga andi barki dem moo dem na def coalition ak ñoom Kia ak ñoom Suwaadu ba ñu ngi di dem restaurant di reere léegi yaay sama reer bi ma toog kan moo koy lekk ah yaay. léegi loolu sama yoon. yaa xanaa du yaa ma jur. ah la jur naa la ba. yaa fan nga mës gisee doom bi bàyyi yaayam. yaa ma ko wax ba ma taxaw nag di jaar ci saw tur naan ma aana may. yaay dimbali ma ngir yàlla yaay sonn naa de. gis nga gis nga maanaam xaddi man man dama bàyyi keer bi laa arrêté keer arrêté naa ko bàyyi naa tekki naa samay jàjj wéer naa samay lenge samay bal jeex na nee na maanaam dama mujj réegu di seetaan di maye ndox yow nag nee doo baax gannaaw ba nee nga doo baax aca bisimilaay gumma neex na baat jant ba sonal yaa ngi may dégg man banaa lii nan laay def te gis nga yii ngay def yëpp man ñoruma man gis nga fi mu toll ni mbir mi man sama bakkuy sama bakkuy te xam nga ne bakkuy moo tax kuy yi ni ñuy tubaab bi baleen te sama kuy ak sama bu nu dajee sama kuy bee jën yi day dam kon sama bakkuy man sama bakkuy man yaay dañ tey génn noonu bu baax bu Cisco ñëwee lépp laa koy wax mm. duma bàyyi virgule yow sax mm. xam nga loolu yow boo waxee ma wax booy wax may wax gat gu lakk gi xajut nit nga doon man ma baax banaan mana ci genn gone yaakaar man man man danga nga tonki sama digg bobu bi ci taxawal yaa ngi ndax sa bop tante yaay tok <laughs> waaw Mari maa ngi toog. Lo may sewale ni sewalu ma di ya sew ya sew sa sew bop man an so ma digg sama ak bop tok ni sewalu ma la tante mbaa du liñu gennon ma and ak kiya ak wujju xade bi lol looloo la nakari man dom awma lu may ci adina li may naqari ki ma koy teg ndeyam juddoogut te bàyyam faatu na. tànta wax ak yow jot na mag nga. Mm. te am na yoo xam ne mag moomu ko. Mm. nga xadi ku ko waxul mu génne ci lu mu nekk. Mm. waxu ko dëgg. man nag sama xarit wujjam bii sama xarit moom la gënoon a yeyoo. te defu ko. mag nga de am na yoo xam ne moom jarul nga ciy dugg. defal yëfu mag nag. dangaa dégg mel damaa dugg ci dara. yow sama yaay nga mënuma laa wax leen waaye xadi moom. man loo ma ñemee wax man lu ma waxee dama dajji sax lu bon ba ci say nopp man amul loo may amul loo may wax amul loo may wax comme que kër gi moom léegi dañuy def ay localisation nii di ànd di dem di dem di di di reere ji bàyyi kër gi man sama yoon nekkul ci loolu man ko def sa localisation defal sa localisation sama yoon nekku ci waaw bu leen neexee sax. localisation ci mbedd mi di ànd di bërëngoog yu kenn xamul sama yoon nekku ci sama mëtta néewut ci loolu man man Anso yàlla dogal na lii man nee naa la man geeruma keerontew ma sama yoon nekkut ci lenn fi mu toll nii dama toog di di di di ndox di di di pour pour pour pour pour di pour di fabriquer de loo de loo sedd xam nga glace yaa ma gën a comprendre. loolooy sa wareef waaw waaw lu ma wax la man maa la jur juróoma maay sa ndey maay sa ndey bu may wax dagg may ba ma wax maay sa ndey yaa ngi may dégg man maanaam yii ngeen nekk nekkuma ci ndax man moom fi mu toll ma mari man sama <laughs> bàyyi kuy de loolu français bi wax sama bàyyi kuy. tant français ngay làkk ku ko moom ah kenn moomu ko nasaraan kenn moomu ko mm, kenn moomu ko tubaab bi daa bind ay kayitam saa ni ma forca man man doom tuuti nga ci wax ma dëgg. li nga jox ma dëgg. leen de xam naa ko xadi xaw ma ban pexe lay lal pour jéem maa génnee kër gi. mais kër gi ëppaleetu ma fi. Hmm. ndax ki yaa sama xarit la te nii lañ def. dafa hmm. séenee ma koo bàyyi. Hmm. yow nag mag nga te sama yaay nga mënuma laa wax leen. waaye xadi moom li ma ko bëgg a wax lépp danaa ko ko wax. waxee dara ma maa ngi àgg ci biir. waxee dara ma ñuus la ma nga sanguwaay. doo meeraam looy wax looy wax booy wax doo ma ñemee wax <laughs> wax ma dara xool ma tojut sa gat nga

sant yàlla. naa fi. waaye yegsil ci biir. jaru ko toogal. dañ hmm. ko waxtaanee fii. ah, ah kii sa mag la. loo koy nëbbati. yow ñëw sama kër. ànd ak sa yaag sa xarit boobu. lépp ma cent mille francs. Ah, yow tamit na waxee ko woon fii nag. fii laa koy waxee nag man. ah lépp ma cent mille ni ma dangay liggéey sa wujju ah bés bu commencé sàcc di ñëw doo li ma ci cinquante mille gisuma la dégguma la sa wujju gaa xaw ma ko waaye dégg naa mu ngi lëmbe dëkk bi mu ngi sàcc nit ñi di ko yuuxoo léegi lu lu waral bañ maa indi sama xaalis. ma demeewul noonu de yaa ngi jaxase li ma la waxoon de. ah du noonu. <laughs> Eh, da ngaa neex xam naa man damaa naax xam naa man damaa naax. soxna si xàmmee nga wujjum wujjam <laughs> sama bonjour ak sama bonsoir nekku ci wujjam xamuma ko xamaanuma ko xam nga man lu ma ñor lebal ko samay cent mille mu ne bu ay mbiram sotte mu tegal ma ci cinquante mi muy cent cinquante mille looloo ma ñor leneen ñoruma. waaw dama lay wax leen maanaam kii wër di ah, gën a manqué yow mii manqué nga de. manqué ma de suturaal gi ma koy suturaal moo tax lépp lu ma def rek yàlla da koy weer si dama bëggoon nag nga toog xaaral si su ko boobaa moom sax mën na la fay ba tegal la ci. man de aw ma jotu sax di xaar ko xam nga yow lu ma lay yëgal ñaar laa la bëgg a xamal giri bi fees na de dell sax soo ca bañee dugg nag suba laa la may matin tin sama xaalis na ma fekk ci foofu fala yam ak yow suwaadu suwaad maa gëmoo kii lu mu wax ay swad bal ma ak swad man limay def ni sax xawma lan moom koy def loo ah, d'accord manam li ngay def ni xamoo lu la koy def lo ok wax nga deug kay hadith yow bang ma koy def yang may sóoraale man yaa ngi sóoraale man lan laa dund ci dëgg-dëkk bi seetoo ci yàlla seetoo ci yonent bi dangaa def lu la saf waaye nag yow yàlla moo lay weer waaye nag sisko moom bu duggasee ci kër gi dina ko lijjanti wala mu lijjantil ko sama bopp ay dimbali ma nga sutural ma bu ko kenn yek suwa da nga sutural sa bopp ba ngay sutural suwa du nga suwaadu sa moromu jigéen laa sa moromu jigéen <laughs> yow pour yow wujje yóbbu ci sëriñ la liggéey sa moroomu jigéen pour lan. bi lay tey moo ko. <laughs>